Sango Gouma soo bëggee publicité gaawal gaaw nga woote ci si numéro bi 77 254 84 39. Sango asalaamaaleykum àddina tey ñi ngi toog ak sëriñ Abdou Lahad Diop mu nekk médecin traditionnel bu ñëpp ràññee ci àddina. Serigne Abdul Ahad job job keman? di ki di gunge ci safaral len bolem seeni jafé jafé yow mi nga xamné da nga bëgg ku la sétal sét bu set weccite lér nañu dawal gaaw nga sét ci ko yamul ak yow fofu bu la seetalee ba noppi tam sarax bu ca war mu dal di la koy gënël mom Serigne Job Keman kon lepp lo xam ne lu lay aar la lu lay la mi ngi ci alquran nu nak am ci tekkal yo xam inshallah allah rabbi ci kàttanu yalla ak baxam kep kuñ ko defal yoon wo sobu inshallah allah rabbi ci kàttanu yalla da nga yegg tay tam yalla suñu borom rek mo mën a yoon woowu ci egg mu ci wàll mu ci wàllu kaaraange. Euh, góor goo xam ne danga danga da nga euh, sa awra gën a yokk wala jigéen yoo xam ne dafa bëgg bëgg bëgg lu mel ne ween wala fes wala yu demee noonu loolu moom dañ ko jàng dañ ko jàng gëstu ko jàngi ko itam ci réew yu uute ba suma borom bi am jox jox ñu ci xam ñu ñu door koo ñu ñu door koo jëf. waaw ba tey sëñ bi dégg naa ñu ne jigéen gi doon sëy ci bërëb ba pare jóge fa ba pare bëgg fa moom loolu moom dégg naa moom yaa ci man moom. bépp jigéen bu jógee ci kër ñu wàcc ko mu mu mu dellu bëgg a delluwaat bëgg a delluwaat foofu wala ku nekkoon ci place jóge fa bëgg faa dellu kooku moom damay wax man man maa ci man ku dul man bari nañu baree baree baree bari ñoo xam ne la leen la tax ñu jëlee woon ci kër ci kàttanu ko mbaaxam maa leen fa moom def nañ te lu ñu man la lu ñu foor ñu foor la itam kooku ci man ku dul xëccoo moom yàgg nañ cee ñaan te itam yàlla suturaal nañu ba képp kuñ ci mas a ñaanal yàlla defal na nga am ndam waaye képp koo xam ne da nga jiitu incha allah rabbi ci kàttanu yàlla am nañu ñaan yoo xam ne sangat boo xam ne bu ñu la ko defalee incha allah rabbi ci kàttanu yàlla yow moom kenn mënut a fexe ba duñ la gis ci kaw duñ xam sax fan nga jaar. bayre moom muy ubbeeku ci ci wàllu wala kuy def commerce wala kuy way wala kuy tëgg wala kuy wala kuy jàng yooyu moom am nañ ay tegtal yu yu yu wér yoo xam ne si ne fu la ko defalee incha allah ci kàttanu yàlla foo ne ñu fekk la fa mosoo gis ku euh, maanaam euh, ku tëgg tama wala tëgg sabar. te te te mbooloo mbooloo wàll si wuñ ña ña ñëw kan moo leen di indi mas nga gis mbedd mu daanu ñu woo ay tànn ñëw leen ngeen lekk ak tànn yi ni ñu soree ci kaw noonu nii am nañ bari bari yoo xam ne bu ñu ko defalee nit ni di xëccoo nit ki dañuy xëccoo nit ki incha allah ci kàttanu yàlla ngir bëgg njariñam. waaw ba tey ku bëgg tukki. waaw bëgg tukki day ñaare nit bëgg a tukki ba pare amul moyen kooku tam am nañ ñaan yoo xam ne bu ñu la euh, xaatim bi biñ lay tëggal ci avion lañ koy def nga fexe ba am suufu réew ma nga bëgg a dem ñu defaral lañ la ci defaral nga jox ko nga nga fexe ba am picc muy naaw muy picc voyageur yi nga fexe ba euh, dugal ko ci biir saafara si picc mi naaw nga sangoo saafara si incha allahu rabi ci kattanu yàlla réew moom moom incha allah bi ci kattanu yàlla si tànk dana fa tege. waaw Simblaat moom mi ngi tubaa mi ngi dakaar waaw maa ngi Touba maa ngi maa ngi maa ngi Dakar donc nag bari na fu ma daan dem waaye dama wàññi woon dem yi daal. waaw bëgg a jokkoo yow naka lay def. waaw ku si jóg a jokk ak ñun da ngay jokk sunu ay ndaw rek da ngay jokk sunu ay man nga woote ci 70 856 37 38 boo ci boo ci wootee rek incha allah rabbi ci kàttanu yàlla da nga jot sunu ndaw wala itam nga jot nu bu boobaa itam lépp loo bëgg xam rek incha allah rabbi danañ la ko leeral ci sunu mbir incha allah ci kàttanu yàlla. Sango Gouma TV Sango Gouma TV Sango Gouma TV la scène qui man Mamadou daal jaxle na sama bopp bi ubbi na rab sama xel jaxasoo damaa xam ne saa bay maam bi may jox caq bi waxoon na ma ci wax ju rëy Mamadou na nga fonk caq bi na nga ko téye na ko aar caq bi bu teg bëtam caq bi booy sangu bu mu dañ ndax ciak bi kat mi ngi ci diggante ñaar teraanga ju ne gàññ war a toroxtaange saa baay maan dugg kër bur xam bur mo yor ciak ñu waxtaan génn sa bay man waxuma dara mbir mi ak les waxul waaye lu taw xam lu ne dafa yàggul caq bi teral na ma lu ne waaye damay dégg wolof njaay naan setan mo dàq ci am ndaje waye man dama naan déet ndaje musa yoon kul ndaje musa yoon kul bo ci seetaanee wàcc nga ndaje musa yoon nekk seetaan amuk kon waruma setan man mamad dinaa jot ci caq bi xam mbir mi tax bu wurtee caq bi tey jii dinaa la wax lu bëriw boo xamoon li rey sa baay da nga moytu buur ak doomi buur ak lu buur jur ak lu taq ci buur da nga moytu buur ak doomi buur ak lu ak lu takk ci Sanday Sanday Sanday Sanday maa ci ginnaaw. maa la doon fëgg damaa jàppoon ne yaa ngi ci biir waañ bi. maa woon ci ginnaaw waañ Sanday. ndax xam nga ne doom dafa ameel waajur àq. waaye ndayit noonu la amele doom àq. Sanday saa baay laa bëgg xam ki ko faat. waaw sutura lu waral sa laaj bi sa faat lu sa baay lu koy faat lu yàlla. Sanday. wax ma dëgg maa ngi dégg ndem na saa baay dañ ko fàtt. sutura wax nga dëgg sa deewu baay leerul ba léegi. waaye nag ak lu mën a am na nga tey na nga ci amuk dal bu baakha baakha baax a la am ci luma lay wax. Sanday gimiñ guy natti mom du wax jam tayit ken musuma jam ba pare di naan Sanday sa bay jant bu ma kan moko ray dina fat aw fanam. ay man ka si bu koy waxee ah. fitna de nar naa yeewooti fii ci dëkk bi waaye yàlla boo ko xam lii jékki-jékki rek jëli wax kenn xamul foo ko jëli Summer. xanaa ki par ge sedd yaa ngi nga bët for naa bët kay ama wéddi dafa demoon sànday de bi ah da nga ma taxanale woon dama laa taxanale woon jërëjëf jërëjëf maas lii da baax na ci démb da ndéef laa toggee démb ndéef waaye àll bi day benn matt amu fi moo ma dee jëti ak kii ni naa la ko indil baax ndax mën naa togg waaw lii kay baax na démb ndéef ndéef laa toggee wax mi kay jeex na gis nga gisul mi dem rek ma dugg waaw yaa ngi ci jàmm. waaw maa ngi sant bu baax. alhamdulilah. Sanday. naam maas. xam naa sax ma laajati la laay wax. lu xewati maas. Sanday Mamadou ndax damaa gën a liggéey nday wala dama gën a bokk ci yax bu rëy. <laughs> waay loolu da laaj ko loolu laaj ko mooy yàq ko. Sanday. dama am lu ma metti ndax Sanday dégg naa ni Mamadou mi ngi sa kër buur ñu teg ko sa kaw di ko defal loola ak loola lépp lu mu bëgg rek ñu defal ko ko. loolu mooy liggéeyu nday loolu mooy liggéeyu nday ah yow Mamadou lu ma la waxoon ca njëlbeen wala ngaa bëgg ma fàttali la yaayi Mamadou lu mu doonoon ab jaam. ñu jàpp ko di ko liggéeyloo xanaa taar baa tax mu jaar ak buur fa mu jaar ak buur ba Mamadou mii judd ca mu ma gën laa liggéey nday ah yow nga bokk ci yax bu rëy yow bu fekkee ne nii loolu doo nga la dese woon nag yow di tëkkale sa bopp ak Mamadou ndax nekk na kër buur ña ngi koy defar rek moo la gën a liggéey nday kon yow xamoo sa deret fonkoo sa deret moo tax ngay xool Mamadou di ko teg bët bay xool ci lu muy nekk ak lu muy am bay wàccee sa bopp doomi jaam di la gën yow waaw waaye nag baax na loolu nga ma fay man xam naa sama deret ji ma yor man lu mu doon xam naa sama deret ji ma yor lu mu doon ndey Mamadou nag noo wax a wax a doon ab jaam ab jaam la woon démb moom la doon tey bëgguma ko tudd sax ndax ma nga ca uh, kërug dëgg ga waaye yaa tax ma tudd ko damaa la koy fàttaliwaat àdduna du neex wala muy naqari maama Mamadou gën la judd wala mu gën la néegu nday loolu moom maa ngi la koy wax delloo si sa xel mii te xam ne sa kër bay sa kër baay gi yaa fi taaw li la fi war daa bari moo ma waxal waxi madu de man lu la booleeg sa baay ba ngeen nekk benn ah moom laa bëgg wax ma waxi Mamadou mais di wëri baayam te gisagu ko te na mujj tey na nga toog di ma wax ay yax bu rëy fii la bokk ak fee laa bokk. Sanday gis nga jaamu Mamadou. mi ngi bëgg gën sama gore laa ilaha illallah kii kay dof na daa man gone gii bis bu set ak la may dikke rek jaraaf fan yi ñu weesu yépp saa su ma tëddee damay gént gént yu day waar te jaraaf gént gi li ma si jaaxal deret ju bari laay gént ju xonq coy lépp ab sawtal jëm fukki bunt loolu jaaxal ma lool ma naa ñëw nag nga firil ma ko buur dégg naa li nga wax de buur deret jooju def sa otoon wutal si dëkk bii di fukki bunt saraxu deret bi nga war a amal ci dëkk bi te génneegoo ko boobu ba léegi moom la seen borom di laaj buur ren li ma la ko fàttali bari na de te dina la ko wat ci jotaay bi sa nguur gi liko lal dret def ci bokk at mu jot dang koy genné bur lo meuna fexé ba sarax bobu am dina bax ci yow dina bax it si wa dekk bi di fukki buntu bur banen bi ci top si gént mi ngi takkale am xare bu mag boo war a takk jëm wala buñ takk wutal si ko fukki bunt te li ma siy gis gëm naa ne boo demee ci xare boobu wala xare bi dugg ci dëkk bi doo ci jële ndam mën nga ci ñàkk sax sa nguur gi na ko bàyyi xel bu baax jaraaf dégg naa li nga wax tey dinaa ci bàyyi xel sarax bi nag dinaa ko génne ak nu ma ko mën a génnee umpale wane nag li taxoon mënu ma ko mën a génne xam nga ko kon jorul ma ci jaaraat ndox amul mat amul. waaw waaw sama nijaay. ana Demba mi ko daan indi ci kër gi. Demba day gëj roti rooti te gëj taxani te nijaay Demba day gëj naa gis ci kër gi xawma nak lool lan moko waral. Demba gëj nga koo gis ci kër gi. gëj naa gis ci kër gi nijaay. kon Demba ba jàmm ko dem ba nga xam ne ni mu saware woon ci root ak taxan ndéef mi ñuy toggee sax moo ñu ko daan indil nga na tey jii siitu ndox am fi loolu duma ko waaj damay jóg léegi xam ci sama doom jii di Demba lu mu ne a ah, bu yeboo de nijaay loo ciy def lu ne nga gaaw ci ndax yàpp xajkat bu seddee soof ndeem dañ koy lekk sama doom jii di Demba jàpp naa ne nekkul ci jàmm ndax ni mu saware woon ci kër gi loolu la koy dindi du doon jàmm te lenn nag dinaa la ko wax ngàtte la ma diggee woon ak moom dee rek moo koy dindi ndax yett yi nga xam ne dinaa ci may sama doom ji di sali moom rek mooy ki ko amee maa ngi jóg àgg ci bi Fatima sutura Ma ngi lay nuyu bu baax yow sama xarit bi maa ngi lay fay bu baax baax sutura ah da melni yaay ngi won ci waar yu de gis nga de goor moomewul toog bis bu Yalla sak, dañu war di xol li nekk ci kër gi ñu di ko defar te ab dëkkuwaay ka dafa war a taaru déggati waye do na deg wolof ci di wax ne bu kaw neexon golo du wacc lol deug la sutura waye bàyyil xel ni bu golo delu wat sa kaw ndax fala xelam di hmm may sa Fatima do na deg ñu naan bour ayul dagge ñoo ay lol deug la sutura wana sa boo ko nañ leen wax ni dagge ñoo war ay ndax kat ñofa bay bur ndax bu dagge demee bur daal di wéet déggati na dëgg may sa Fatima waaye nag séddale moom taamu naa sa kuddu yu njëkk ya yenn say kuddu ya mujj ya ndax gëna bari ay sama xarit xamna ni daal wala fi set na te leer na loolu ku dégg nga wolf nga <laughs> si yow lañu roy rek euh, may sa Fatima xamna ni luy jot jot na ginaaw gudi yi ma nekk nelaw ba yandoor moom mënatuma ko ndax xalaat yu bari may sa Fatima bàyyi taala dama junjoon ne bis boo xamee ku rey sa baay waxtu woowu nag ñi ngi waaj ngir jëm waaja ngir dem ndaayaan ma sama ndayit loolu ne sama wayjur wu dañ ma bëggoon a xam nag kan moo ko faat boo ma ci tanee nga dimbale ma ci sutura xibaar bii de tiis na ma lool waa nag bul fàtte ni lépp loo nekk dama cay nekk ndax ba ma nekkee ci mbir guddi yi xat te metti yoonu ndaayaan wa tar yow mii rek laa gisoon sutura. naam may si Fatima. lii da ko war a xam képp ku rey sa waajur da ko war a xam waa nag bàyyil xel ni man ak yow ñoo yaroondoo ci tund wii te sa baay bi muy làqu ay tuut tànk lañu woon kon xam ci dara dina jafe waa nag sutura xeex bii de dinaa ko ànd ak yow ba fa mu yam neex ma ñaan nag jamono ji dama nekk ci wàccaayu dem Ndayane waaw sutura Ndayane dama bëgg a dellu Ndayane ndax Tooraro dafa daw te faaw ma dem jëli ko andi ko fii. may sa Fatima booy waaj ngir dem Ndayane yëgal ma ko ma gunge la yow foo dee ma fay daan. kaddu gor yooyu bis yàlla sakk mu jóge ci yow jëm ci ci man waaye nag dama bëgg sa xel dal te xam ni. kuy lañ ma ak lendeum man ngaa hmm te aji So moo meetu ay geutam sutura na may sa fatima ndax yeug nga ni lu ni tassar xajliko lu dag fek morom ja te lu méngoo hmm lu wer ya sama xarit ken munta dem baye morom ja mhm. way nak bayil ma dem dayan ndax wa dayan dama ko bëgg def walub degej dina mok rumbax te do deg kandang Mhm. saa buñu tuddé ndayen ndaayaan rek fit juk hmm dama bëgg nak lolu dégg ndax dégg nga ma sama xarit. dégg na la bu baax may sa Fatima. suma démé nak ba ñëw ñu xol kan mo réssé bay su boobaa ah sutura dina takalé bopum ak batam ma nglay ñaanal yoonu jamm waye na la bir jant bu ma ku ray sama bay. Dina lepp aw fanam. ñu yenn jàmm yoo sama xarit. baax na sutura jërëjëf dëggal demba lan mo xew sa yaay bi nee ma ay fana a ngi nii dikkoo ca kër ga ndox ma nga xamne yaay ñuko ñu ko daan rootal ñëwatut sayu mat yi nga daan indi tut. ndef mi nga daan wutal salimata biige ñëwatut ma amuk jaxle lol ndax fatte won na ñak guma ñak dom ju ngir sa taxaway yow mi motax mané lan mo xew Bayag. nam, Ma ngi tu bu baax a baax a baax xam ni sa keur geñna fa lol. Wa nak lepp lo gis dafa am lu ko waral ndaxte sa dom ji di Salimata Bigué sa dom ji di Salimata daf ma jënde ak sutura hmm. Wow. daf ni ma neexul ba neexul sutura mo nek sama xol ah may doomi góor dëgg nag ndaxte dina am gatché lol di fa di jël ci guti wala may di fi indi di jakarlo ak Salimata Biige lolou gatché la ci man lolou motax gisatuma ci kër ga waa du leneen maa ngi koy tuub nag. Hmm. maa ngi doog a xam li waral sa tànk gëj ca kër ga waaye Demba bul fàtte mukk lama la waxoon te guy ga Salimata Bigué maa ko jur maay baayam te nee woon naa la yow mii laa koy may ma bëggoon nag nga lambaayoo muñ te xam ne lu mu yàgg yàgg yàgg yaay kii muñ ndax ñun ñii de li ko dale ci sama baay ba agsi ci suñu maam lépp loo xam ne ngor moo koy joxe rek ñoom ñàkkuñu ko benn yoon sama kàddu raw na ma ci yow su ma àggee wax ak Salimata Bigué na nga dalal sa xel bu baax nag te nga xam ne Salimata du la mukk wallaahi ba ci dara ndax yaay sama dom Demba dama ne woon naa ci kër gi àggee la lii waaye gannaaw xamee naa ko dana jeex

da bari lol bari na lol waa ndee la waaw yeng nga ni Mamadou dafa dawat wa yeng naa ko Mamadou lu jaral li Mamadou kat warlu wona dawat dawaat ndaxte yoonam wi, géntal na ko ni bur bu ko tege beut na takale bopam ak batam Mamadou de yakaruma ben yon bur ray ko ndax seetlu na bur, dafa am cofeel lol ci Mamadou ndax Mamadou ni ko bay bayalé da upp lol, ba tax na ñin ñii bu fekkone ne ñoo def lol ba nëga ni bur rey na nu bu wanta wante nag la Mamadou wara wona dawat dafa wara xamanteni ni ay jam moromi jamam rek ñoo nekk ci kër gi te ñu tok du muñ wa lol deug la waye yow mom bëggon na ñu waxtaan ba jamandé la ndax tay sa togu tay gi xorom si ëpp na lool ba bëggon na boy liggéeyati nga xol bu baax ci li ngay def ndax bur dafa nakari dereet ta na fi mi fi nekkoon jambar la woon lool ndax liggéey bu masana def fii jërëjëf rek la daan dégg ndee la jërëjëf rek la lay wax te kat mënoon nga ma jott ci kër gi dima sétane wala nga may bund xatal wante luma am luma metti yow la koy waxtanal nga xelal ma ci jërëjëf deg na li nga wax limay liggéeyati kat nako xol xorom si dootul ëppati nako limay li may liggéeyati yépp dina baax inshallah allah dal boko defé di nga yag fi si kër gi ta do fi am ben jafe-jafe jërëjëf Ndeye dégg naa la. Mamadou. nambay dama bëggoon nga leeral ma ci tënk say tank lu ko waral fi ci fekk bax bay dama am kess lool xol la ndax ning ma yare dama waris lool li ta sama tanki ne lu ko waral moy dama bëgg ñibi ci sa wet xool ba xol way awma lu la ëpp aw ma sut ta ning ma bëggee wallahi xamna ko loolu daal moo sama tank tànk ñibbi sa wet dal moy sama tank mamadou nam bay joji wax wàqil ba mu xoot nga na ko dalam sul ah du mana nek lu xel dajut nak wëree su ko raas te yàgg naa la wax gone mën naa ñoo lax ndiku ba ca kaw a kaw mu xulli wiir wiir fu ko neex du gis tus mag defeenu ci ruumam di gis ca ceew fii di fekk baax doo fi nekk ba baax le mukk yow sax war nga ko meuna xamal sa bop ndax ki di sa yaay gis la ak gis bu titam la yemale day maslaa rek ginaaw bugg guddii guddi beccëk baxul guddii baxul beccëk yalla bëccëg muy dara tawut ba nga démé mere la boole koo jaaxle waaye bi ma ba tek samay gëtt ci ak nam la yore ak nam la ma wax ak mom sama xel dafa dal lona nak duma sa am ngay del wat fi muy yaqku ni rek waral sama wax ji jërëjëf bay li nga wax deug la xamna ne mere nga mere won nga ma lol te def tamit waruma mako def waye dama jaxle won rek te ku mom da ngay dem rek wombakee garab soko ko da nga wax na deg naa ko te muso ma wax lo xamne ne ci sama bi Ya ma yar. kon fas yéene koo jëfee len lenn rek moma jaxal nak muy lan. tak bi nga xamne ne ma ko joxon nga woo ma ci sa gerte gele ne ma bu ci tegu bu ci dara tegu sama nday mo la ko joxon nga wëlbati ko ci xat mako ci lu wér muy sama momel. nga wax ma ca lang may wax ma dégg ko caq bi bu tek na ci loxo te jot ci rek la bëgg ak numa ci si nak nag te du mo sétan mukk mukk mukk ñu jël sama momel. may gis ki ko yor te du mako mëna jël li mom bëgg na nga xam ko deug <laughs> la lila war rek nga nek nit day am fulla am fayda waaye xam des na ko def te doo xàmmee xam nga ne yaa moom waaye sa moomeel lu la mas a rëcc waaye bés bu jotee ci lay gëne waaye dafa ñoragut ca kanam ak kanam caq ba dana delu ci say loxo te boba dana and ak ngeenel waye fi mu ni ni nga ci bëgg jotté muy walu fukar ci borom doole kenn do xex ak mom ci nonu dang koy nangul ba mu rus la doot la bañal dara bu boba lo bëgg man nga ko waabalé fofu ci ciowru du jib na nga and ak dal bul ngaata jëm ci gasal ba mu xóot nga ne ko dallam suul maasale ko jéggi jàll bu mu ko déggati ci sa làmmiñ bu ko waxee bu ko doxee mbotte nag bugg la guddi bugg la bëccëg bugguma tam sunu jataay bi ñuy seen ko di nu yëddu ndax ku yow la mën na noo yëddulu sax xawma jinne koy wax xawma lu koy wax kon nag dama bëgg nga a ñokket ne coow boo demee loo góor góorlu woon nga yokk ko lii rek ay sama wax ak yow. waaw dégg naa la waye léegi da nga wax baat bu am solo. te bëgg na nga leral mako moy xam ak hmm mo la bëgg nga wax moom la. xam nga na caq bi. ya ko mom sa moomeel la. sa ndeye la ko batalé won ma tigat ko ci say yoxo waye ragné woné soko mbugal ma ca am ba sa bakkan dess ci ndax amna luma la ma san wax ne la bi dem na ba ci sabakan bi mën na cee des loolaa tax dugg na ci yoxo yoo xamantene nak xel mu ak ak dal ak yar ak teggin ci nga ci mën a mu dikat say yoxo ci ciow du jib bal du tak jasi du genn maram welu degej bing bam du am kon du am ci dana nooy neer waaw ah, na la su ma gisee gis góor gi ba wax ko li ma koy wax dinaa dellu dëkk bi. bul xànd ci kër gi de. dégg naa leen wala boo nee yurub neel wërëñ. dégg naa leen waaw. salaamaaleykum maaleykum salaam. saa doom noo def. sant yàlla bu baax yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm baax alhamdulilah. wa tabaarakallah. Bul Saare Nder da laa soxla woon. yow la kan. xame woo ma naa tante yaay ma Mamadou. yaa ko jur. ah daanaka de ndax ba ndeyam génne àdduna man la ko bàyyee te maa ngi ndeyam ñoo doon weccandi ko ay baatu. Ah, maa ko yar de.